takbir dégguma dara de na asamaan yëngatul na aras yëngatul na kursi yëngatul ndax jullit yi ñoo am naxar yal na yàlla dégg suñu naxar yal na yàlla alal noonu lislaam yi allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah kii def na sas buñ jëlee kilifa yi tënkoon sànq ci kàllaama arab mu tënkal ko pour la presse international ndax ñu mën a yóbbu message mu egg fu mu war a egg ndax agence Reuters mu ngi fi RFI mu ngi fi Al mu ngi fi la presse Gazaoui mu ngi kon am naa yaakaar ne.

Donc qu'on cesse de traiter le Hamas d'organisation terroriste. Les Palestiniens sont en position de légitime défense. Par devoir de soutien à nos frères opprimés de Palestine, nous les signataires de cette déclaration, c'est-à-dire l'Alliance nationale pour la cause palestinienne, nous émettons la déclaration suivante. Depuis plus de jours, l'armée sioniste dirigée par le criminel premier ministre Netanyahou, avec le soutien inconditionnel des États-Unis et des pays occidentaux, mène une guerre vicieuse et sale sur la terre de Palestine et dans la bande de Gaza en particulier. À ce jour, d'après la presse internationale, personnes l'ont payé de leur vie, enfants, et qui n'ont eu que le tort de défendre leur droit légitime de jouir et de bénéficier de la terre de leurs ancêtres. Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine n'est que la face visible d'une guerre féroce et dévastatrice menée contre la Oumma islamique avec comme objectif à terme la destruction des lieux saints de l'islam, en particulier le troisième lieu saint de l'islam, Masjid al-Aqsa. kii avec la mosquée de la Mecque, Masjid al-Haram, et le deuxième lieu de l'islam, Masjid al-Nabawi, où repose Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors ces trois sites religieux sacrés de dormir, mais il rien. Parce que Suñu Boroom a déjà les garanties dans son retour Asra, son retour Isra, le voyage nocturne. Les médias internationaux de faire croire aux musulmans que ce conflit qui est en cours depuis 73 ans en Palestine est un simple différend foncier. Toutefois, la constante que nous devons comprendre est qu'il s'agit d'une extension des croisades dans le but d'effacer l'islam, de rayer l'islam de la carte du monde. Nous devons donc considérer ce qui se passe comme une question de foi qui ne concerne pas seulement les Palestiniens, mais plutôt l'ensemble de la Oumma islamique. Le devoir légitime, légal et moral exige que le monde entier, particulièrement les pays musulmans, soutiennent le peuple palestinien qui est soumis à un génocide atroce et abject contre ces, ces, ces, ces brutaux. Dès lors, nous condamnons l'attitude déshonorante de certains pays qui se précipitent pour soutenir le bourreau israélien en lui fournissant de l'argent, en lui fournissant des armes et en lui apportant un soutien politique dans les rencontres internationales consistant à justifier les crimes d'Israël contre l'humanité. Nous nous attendions que les dirigeants des pays musulmans, en premier lieu le président de la République, Nous nous attendions à ce qu'il assure alors dañu wax ne président Macky Sall il est le président du comité des Nations Unies alors moom amul lu mu wax naan bàyyi leen xeex amul il y a un agresseur un criminel génocidaire buñ tuur safara ci ay population dafa doon téye ndox kooku ne ko bàyyi rey bi waaye naan ko euh, euh, euh, il faut arrêter la moo tax ñun nous déplorons ce communiqué du gouvernement du Sénégal que nous jugeons timide et complaisant mais ñu kontaan alors maintenant fii ñuy wax nii kii dafa le président de la commission scientifique euh, docteur euh, Abdou Karim Diaw nee na bi ñuy nasee suñu euh, mbir mi di ko waajal dafa am bees lu ñëw ma ne ko lu bees bi lan mu ne ma cessez-le-feu nee nañ cessez-le-feu am na Gaza mais un cessez-le-feu c'est quoi c'est une trêve militaire trêve mooy dañu wéerandi gànnaay foo déggee ne dañu wéer gànnaay wéerandi gànnaay alors cessez-le-feu mooy lan mooy dañuy wéer gànnaay wéer gànnaay ça veut dire que ëllëg Israël mën na jógaat songaat jullit yi Israël la violé ay cessez-le-feu a violé les accords de Camp David en 79 Israël a violé les accords de Oslo en 94 a violé la résolution 242 Nations Unies Israël a violé la résolution kooku bu ñu waxee ay cessez-le-feu ñu ko gëm looloo waral nag. Il ne faut pas dormir sur nos lauriers, restez vigilants. Parce que le problème est resté entier. Tant que territoire yi ñu occupé à Gaza, à Cisjordanie et à Jérusalem, les musulmans continueront à se mobiliser pour que Israël dooli jiw delloo ci suñu yàlla. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Malaaka yërmande yi leen tiim ñu ngi leen di bindal ay yiw. moo tax ku ñëwul tey jataay bi bu fekkee amoo ngànt perte nga kon nag yàlla leen yàlla sàmm yàlla na yàlla dëppale xolu jullit yi parce qu'il n'est pas normal un petit comme Israël am 10 millions d'habitants umma islamique bi nekk un milliard six cent cinquante millions d'habitants ba pare unité loolu dara waralu ko lu dul naa fex pays islamique bi